salaamaaleykum wa rahmatulaahi taala barakaatu mbokk yi soppee Sëriñ Asan Salaam yi tey ñu ngi ñëwaat fii ci Mboro di le 24 août jamo bisib samedi laaj eh, Moodu Maar di ko laaj Sëriñ Asan Salaam doon ko jege daan fekk jotaay lu bëree bëri itam fekk ko fii ci Mboro di ko laaj tey samedi le 24 août bisimilah aoudu billahi min la hawla wala quwata illa billah aliyun azim Euh, man Modou Mardé li ma seede ci jotaay yoo xam ne fekkee naa ko ci sang boobu muy si asan salaam ci ay jamono yu bari bari yu bari yoo xam ne fekkee naa fekkee naa ko yoo xam ne booba euh, alaaji Ousseynou Thiam mii di suñu nijaay dafa fasante woon kóllëre mu fi ñëw ñëw goo xam ne nag ñëw betteel la daa doon daawul yëgle dara xey rek ngay jalet ñew yalla mu def dana def ñew ak suba du fanan du yendu fan ñëpp delu wala wala mu ñew ak ngon fanan asaman set mu delu daw fi tok te itam item yu itteem yi ko daa tax a yu bari ite batin lay doon lepp lu jëm ci aduna batin lu euh, zahir daaw ko tax a jóg mosu bu ma sufee ñëw mukk du ay itti doomu adama yoo xam ne du koy jëriñ ci àdduna di koy jëriñ ci àllaaxira raxas nit am ay tilim tilim mu gis ko ñëw wax moom wala boog mu gis lu koy yàqal ëllëg mu ñëw wax moom ne ko defal li defal la wala daana def naa ci loolo bi mu fi mësee ñëw ci njaalbeen kër Salsamodi la njëkkoon nekk ñëw Salsamodi agent agriculture la won bu nekkoon Mboro ci centre agricole ba lek sen Mboro mo nekkoon docteur bi ñu ko sar sàmm bi tukulóor la won yag na nak ñom sen diggante yag na nak bi fi sar di mu koy fekk si am ben bis mu fekk ko sar sàmm di toog bi mu togué ak mom ñu waxtan mu yag ben jarbatam ñewun fa jarbat ba nak ab tukulóor la bo xamné dafa jógee Fuuta ba mu ñëw nuyo comme ni ñu nuyo rek sëriñ Zaman ba pare juk sëñ bi ñaanako mu juk mu ne sal mu ne sal sal mu ne ko mu ne ko ka mu ne ko waaw ki fi togon xale bu bi euh lu ngeen bok mu ne ko sama jarbaat la mu ne ko na waaj delluwaat ndaxte de ruwam tagona bu fi toogee ay fan yu néew fi lay faato sal mudi mo nettali lool ci lamiñu ma tok di deug lolé fekkee ko sal mudi ba mu dat ba so waajal soxna si mu dem ba dat ba jotee ay fan wu néew ñu tàggee ko ne ko sa sa sa jarbaat gaañu loolee am na ci seen suñ kanam beneen bi des bu jógee ba euh, euh, mu ñëw fa booba imam Mboro bi ñuy wax góor a kan suñ góor a nekk suñ góor kan ñëw fa ziyaare si ba mu nuyoo mu ne waaw kii bu ñu dem ba dem mu ne mu ne ko waaw ki ki doon imam bi doon ziyaare léegi ndax yàgg na fi ñu ne ko ah yàgg na fi kay mune moy sen Imam ñu nako waaw muna ah, nit yalla la de ko am badin la ko ki de bu roo mi nga teemel lu ci aljana lolé wax nako ko suñ mais booba fekke wu suñ góor akan wu ko sa di wax ñu ñu teew benen bi dess fi keur suñu la mu ñew fi ci keur alaaji ba mu ñewé ko ma fekke ko ba mu ñewé ba mu ñew rek commencé laxasu ci ko ñu fonante mu sujjoot ci kanam mu tok comme nu mu def rek mom da da wax di re di muñ muñam gogu mu suñ góor kan si assa salam ne ko seru gi de mi ngi mel ni eh, meew mu ñuy def ci butéel bu fek del amul ben rax di mu ngi tëmbali ci aljana ndax gis nga xam nga ru gi do dem aljana te te faatagul ñu nako dede mu ne ki jëm jëre bu faatu dem aljana ruwam da set wecc lolé wax na ko suñ góor kan suñ góor kan ko karaw lol seug amna ci carte sax ndax lam ko wax ci mborom ma beneen bii des sëñ góor akan fi fekk fi seigne bi ziaré ko mu ne ko sa wajur wa nekkon keur Samba Kan ngey bobé euh, seigne goor akan dama ne dafa da ñew ñukoy xam borom dersi boba seigne asan ndax tax ku nek mak ndax der la yoon bo xamne bu waxtu julli joté rek bu ko sané rek mu jublu penko waaw ñukoy borom dersi waaw waaw loolee fekke naa ko mu ne ko si mu ne ko wax sa waajur moo daa fekk foofu kër kan leer ga nekkoon ci moom nee na ak léegi mu ngi ci yow ak suñu dara ji nekkoon ci moom nee na ñëw àgg nga ca loolee man fekkee naa ko mu waxaat ko lool suñ góor a kan waaw. beneen bi des am na benn waay boobu fi nekkoon ku ñu ku fa faatu woon dafa gaañoon fii. mu laaj comme nga Assane de mas ko fee mas na fee gaañu ñu ne ko waaw Assane boor yi ñaay gi lañ ko suul mu ne kooku de mu fitna yu métte métte ndaxte dafa amoon lu mu defoon mu waxaat ne am na benn jigéen joo xam ne si jogo gi la dëkk nee na nee na guddi gu ne dañ koy génne penku jiko ko yóbbu sowu ci di ko di di ko fitnaal ndax nee na da daa jaay jën di ci boole leneen loolee fekk naa mu wax ko waaw waaw diggante loolu laa fàtte waaw waaw waaw waaw loolu wax na ko fii ay yoon yoon mu waxaat na itam euh, euh, fekk man am na benn bis ma laaj ko ne ko man de dafa am boo koo xam ne dafa nekk fii si usine bi ku ñu wax si jibril jibril jibril gay armelam nag usine bi da ko jege woon ba am ay tolof tolof mujj dañ ko mujj bàyyi dégg ko mun mu ne mënuñ ko mujj def mën na ko dañ faa def ab xubba tabax ko mu baax mu ne ma kooku de xam naa am na lu yàlla def ci moom waaye loolu lu foofu la foofu la yem waaw waxuma nag mu mel mais nee na ma daal kooku xam naa ne am lu yàlla def ci moom li tax ñu dégg ko am lu yàlla def ci wax na ma ko waaw léegi itam xam naa ne wax yi nga xam ne waxoon na ko ci yoonu yoon woowu ci Bambey ci teen boobu ba ak see Kër teen bi ñu wax jaakaan ne ci Lassachine tombeeg 1330 Lassachine dat dat boobu muy at boobu nga xam ne moom la moom la ko moom la suñ borom wàcc ruwam moom nga xam ne ba mu demee ci xare Mubtaa ca romain yi ak grec yi romain boobu yónni salaam salaam salaam yónnee loon moom du doon Zeydu ibnu Aris boole ko mbooloo mu néew jox ko drapeau bu weex ak mbooloo mu néew mu ànd ak Jafaar ak Abdullah ibnu Rawa ñu demee ruwam moo njëkk a rocceeku ñu indi ko ci ñu aj ko ci asamaanu sa àdduna ba las sin jot ñu wàcce ko ci teen jaaxaan boobu boo demoon tey Kër Sayar boo booy mel ni ko di ko dem biir jooreel am na teen bu ñuy wax jaaxaan boo laajee teen jaaxaan ba nañ ko wax léegi nag kàmb la boo xam ne bu xóot la léegi dañ fay sànni ay mbalit waaw mais teen la woon ci jamono nee na ruuga fa la nekk ba las sin jot nee na boobu mu ngi kàbb kàbb kàbb googu ay waajuram nee waajuram bu ñu ñëwee wa sam sam yi bu ñu ñëwee di di wëgg néna moma xamna né day ñëw néna mu jël tafu ci pinu bi di def di def bo waajur mu jigen ñu ñëw sanni baag bi mu and ak ndox ma duggu ci baag ba néna mu yobbu ko kër ga néna ci la ñëw aduna bu mu ñëwé aduna ilmu diraaya ilmu ledaan yoyu comme non la ko suñu ko man mandal waaw ilmu len la doon ak ilmu diraaya waaw lolé wax na ko itam fi wax na itam né aduna de jeexna ndax nee na euh, euh, jant bi dañ ko dañ ko dafa tourner léegi ni mu meloon ni mu bindoo woon bindootu ko léegi dañ ko dafa dafa jeng léegi dégg dafa jeng te loolu sax tuwa daa mel tubaab yi wax nañ ko nen tugal aduna mom nako ñepp ñaan bañ ko fekkee ndax neena na kenn du la sang kenn du la jullee kenn du la jang loolu mom amna ko sang ak jang ak jullee ku do ko am te lolé bokku na ci ay li luy defar doomu adama an nekkoon dal ku baax yalla baaxee boo xam ne bokk ne ahlu kashfu ñu yàlla baaxee ci baatin nga xam ne ñi baatin ci la bokk waaw ñi ëpp baatin ci la bokk dafa nëbb nee na du mu oote oote mbooloo ndaxte boo ootee mbooloo dañuy dañuy dañuy nangu duñu nangu te ndigalu yàlla lay doon te ku ko weddi weddi da nga weddi yàlla te bu ko doo doo taxe loolu moo tax du mu oote mbooloo am na benn bis ma ñëw fa maag suñu mbay mii mun nañu waaw sama lettre boobu ñu bindoon ma bindoon nu mu nu mu mujjee ñu ne ko ah euh, lettre ba de euh, waxuñ ci dara mu ne ab lettre la boo xam ne damaa toog fii ci asamaan si suñ borom wan ma fi ab ay ay ay ay ci niir euh, balaa boo xam ne day wàcc ndax bekkoor bu yàgg balaa bi nag nekk ci asamaan si tiim tiim tiim tiim doomu nee na ñu ne ma nag looy tax mu saafara bu balaa bi dañ mooy tëj lépp loo xam ne fowukaay la muy cinéma muy làmm muy lépp loo xam ne daal caaxaan la boo defee bu ñu ko defee ñetti fan te tuub jégglu jàng saar woowu ci alquran sóorbu laraaf te sóorbu laraaf aaya bi ñu wax ne inna rabbakum laahu lazi xalaqa samaawaati wal arda ayam suma istawa alal arsh ñu jàng ko ay yoon yoon ci jàkka yi bu ñu ko yaawee te tuub yàlla dina wàcce ndox nee na ma bind ma ma ñëw ci benn tëgg foofu sama xarit xam ku sant caam ne ko man dama bëgg nga jox ma kayit ndax na ko mën a bind tubaab mu ne ko waaw nena mu o dom ji dom ji ñew mu indi ko kayit nena ma bind sama tur ne tur asan salam ci ndiarim de nga nena mu ma wax sama lepp nena ju bind na ma ko ñu bu ko sarayu senegal asamanti way ndax mu taw lañuy def li day def laa te lolé nena man la ñu dindi sama tur de nga moom mu wax ko ñu wax ko ci tur Alaaji jabb loolu lolo lu nekkon nak lu ko xawon pisal lu ko nakar lool waxtu ñu buñ fa ñaari mo wax mm. waaw te nena bam ko waxé jamono jooju ci saase la taw waaw ñëpp xam ko inna rabbukum laahu lazi xalaqa samaawaati wal arda a boobu moo tax ba mu ko waxee man ci laa ko jàng ci saasa di ko ba mokkal ko waaw dama ko jàng sax bokk na ci nga xam ne bu mooy mooy ñaan ci ci laa koy boole waaw si asa salaam daal ci gàttal ay mbiram xam ko jafe-jafe parce que bokk na ci ahlu ahlu kashfu yàlla da ko da ko da ko da ko kii wax na itam képp ku ma tuddee doom da nga taxe ndeyam dina taxé dom dina taxé ndax té néna dama bañ yamu xiyam di dug aljana di wét motax moy dem dama bëgg am mbolo waaw aljana wét bokk loolu loolu wax na ma ay yoon yoon waaw ñu bari nak dimbali nañ ban mi bokku na ci mbay sek bokku na ci ak keneen ak keneen ñu bari bokku nañ ci suñu ci am mii am bis mu ñew ne ko yaa taxaju mu nga mu ne ko ndax am nga fàgganu ko ko junni nga jox mako ko duma tok duma yendu damay dem léegi rek du dama am lu ma lu ma la gisal loo xam ne boo boo ko deful da ko dana la daj sa ko dana daj sa ko mu ne ko léegi laa la ko jox mu jóg ci saasa dem lijjanti fukki junni jox keroog fanaan ba mu xëyee la matin monté cinq heures liggéey usine gaare ka Land Rover bi ca ca foofu dam na liggéeyee benn camion bu mag a mag camion santoon yu jaar ci camion bi waaw loolu suñ kanam la <laughs> dégg nga loolu def na ko def na ko fii dégg nga ko dégg nga ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yeneen am nga xam ne sax neexut a wax ci la ci rajo waaw wax yi nga xam ne wax yu yenn yi la loolu kenn du ko wax mais li am solo daal mooy yal na yàlla ci barkeem waaw ay mbiram dafa yaatu te baatin ñaan yi nga xam ne aussi daan na ko ñaan ay tegtal yoo xam ne suñ borom moo ko moo ko baaxee ku ko jàng bu soobee yàlla da nga da yàlla na la musal waaw voilà ci kanam daal ba ma xalaatal leneen man daal lii si ci gàttal am na yu bari yu ma yu ma yoo xam ci yoo xam ne ay jataay la yoo xam ne fekkee naa ko fii Mboro fekkee naa ko Njaare mi daa koy wax waaj bu fekkee ne gaa ñu baax ñu ñëpp dañ ko nekkoon ba jóge fii te defaluñu leen li nu leen defal nii nu leen fonk fonk wuñu ko taxawuñu ci matal seen àq seen barke ci ñoom dong lay yem waaye du agsi ci nun ñoom ñoo jëfe woon li xokkamaa yi wax ne amal li dunyaa ka annaka laa tamuutu abadan wa amal li axirata ka annaka tamuutu xadan ndax li ñu bu fekkonte ne dafa yemoon ci ñoom képp ba léegi duñ taxaw di ko waxtaane di ko sulli ngir nit ñi di xam la ñu jëfoon di uh, yoon wu ñu tàllal woo xam ne nit ñi dañ cee war a jaar ngir texe ëllëg kon bu fekkee ne seet nañu ne ñooñu dañu noo liggéey liggéey bu rëy nu bañ a seet kenn fu fees lu dul ñëpp bokk bëggandoo ñëpp bokk wormaal ñëpp bokk sàmm ñëpp nu bokk ndey bokk baay yëpp li nga xam ne moom lañu alxuraan wax ak li yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam ne almuslimuna tatakaafau dimaa'uhum wa yasaa bi zimmatihim adnaahum wa hum yadun ala man siwaahum ñi gëm ñëpp seen deret benn la ki gën a suufe ci way gëm ñi bu fasanteeg nit wëllëre wëllëre woowee war na jullit ñëpp jullit ñëpp benn loxo lañu tiim képp koo xam ne dal nga ci kaw kenn ci ñoom ñu seet nag masuliya maanaam responsabilité sunu mag ñu baax ñi nga xam ne ñoom la ñu sulli seen i jaloore seen masuliya di lu mag ndax dañu ne ida zalla al aalimu zalla bi zillatihi al aalamu koo xam ne benn njuumte boo def mbooloo mu jeex topp sa njuumte loolee jàppee ko dëgg te buñ ko fas yéenee bàyyi mukk te loolu lépp yow yaa koy gàddu sa responsabilité rey na lu mënul